ko wax ne itam incha allah xam naa suba mooy doon ñaanu Cheikh Abdou Khoudoss Cheikh Abdou Khoudoss nag ci gàttal gi rek moo wax ne yàlla nañu ko yàlla fayal kenn la woon ci njabootu borom Darou Mouhty jiite dëkk bi diir bu yàgg doon dox doon doxe dox yi nu borom Darou Mouhty woowee te mësta maanaam juyóg borom Darou Mouhty ak sëriñam bi Sëriñ Tuubaa ci dara kon moo tax nag yàlla nañu ko yàlla fayal te yàlla nañ ko yàlla defal mboolem liñ fi ñaan li ñu def ci ay ñaan lépp mu jafal ko ca te boole koog mboolem ña ko fa jiitu Cheikh Abdou li ñu mën a jàng ci moom bari na bokk na ci ay mbir yoo xam ne xëy na man wax naa ko ba tey waaye day yu bari am njàng mooy loo xam ni danaa ko nekk lu bari bari Cheikh Abdou ñaan nekkoon bëgg nekk ci moom rahmatullahi alayhi te di maam ci man dama mas a nettali ni dafa am bis sëñ sëñ boobu sëñ Abdou Khoudoss fi mu ne mag ñi xam nga dañ daa ñëw di toog fi moom te mag ñi boobu mooy ñu mag ñu mag ñu mag la ñooñu mooy ñu fekkoon borom daaru la ñoon am ci kenn koo xam ne mag la nga xam ne jàngal na sax sëñ Abdou Khoudoss ñëw ci jataay bi jóge ca pénc ma bi ñëwee nag di nettali nag fekkoon sëñ bu ma saa toog fii ne mag ñi dañuy toog ne di nettali seen nettali mais sëñ bi sëñ Abdou dégg ko muy nettali ne ko man de tey daal soxna nangam jaar na ci tur wa moo ñëw fekk nu ci penc ma jox nu loxo loolu daal mosuma ko gis nee na waaye gaa yëpp a joxe loxo ne góor gu mu jox loxo rek ne nga fekk soxna si daa jóge màkk booba ñu di ko nuyu nee na sëñ Abdou ba mu ko déggee ne ko diw mbaa yow joxewoo ci loxo mu ne ko nu may def man mi ngeek ak métal la maanaam xam nga ñu jóge màkk noonu ñu def moo tax gaa yëpp joxe nañ loxo ma rek ma tax ma jox ko loxo mais sëñ Abdou ne ko kersa bu dee genn do bul ko jox mbindeef xañ ko yàlla maanaam wax ju réy gi noonu joo xam ni maanaam bind yu bare bare bare xañ loolu rek mat nam téere fi ne kersa bu dee genn bul ko jox mbindeef xañ ko yàlla loolu lu am solo bind la boo xam ni loolu rek doyoon na lu bind ci Cheikh Abdou Khoudoss mooy nu jànge ci maanaam mbindeef moo fi rus ni yàlla nga war a gën a rus ci moom te yàlla moom maanaam li nga def lépp da jànloog moom dara umb ko ci yow te itam dalaa ji teraanga ba tàyyi defal la xéwal goo am rek ci yàlla la bàyyi ko fi ne léegi nag rus nit ak lu tax nga mën ko rus rek ba mooy yàlla loolu àdduna jëru ko loolu la sëñ bi jàngal waaye sëñ boobu foofu te kooku mag la woon di kilifa itam wax naa jàngal la sëñ boobu dañoo bañ a waxtu bi ndax jëru ko ak yeneen yu bare bare bare yoo xam ni man man na ko jàng ci moom man seetu ko yàlla da ko defaloon moom ak teel yooyu dafa ci wax lu bare bare ne man danaa ko sant bu baax ci teel bi nga xam ne moom moom lañ jàng ci moom noonu te mooy teel bi goo xam ni lépp daa dëppoo min mbindum sëñ Tuubaa boobu maanaam fi ne boo delloo ci mbindum sëñ Tuubaa doo doo am doo doo juyóog du dara du ci juyóog moom boo delloo ci lislaam itam te ci ci yonte bi aleyhi salaatu salaam la mu doon wax ak xadis yonte bi dara du juyóog moom nga dem ci alxuraan noonu bokk na ci yu mel noonu mooy li ma sëñ Maxtaar Jóob mii mas a nettali ne ma sëñ Abdou Khoudoss booba ne dafa am waajoo xam ni dafa am kum takk ab taalibeem la sëñ Maxtaar xam na ko man nag fàtt naa tur wam waxat waaye nee na ab talibeem la am kum takk fekk kam takk da ko xaram ndax bàjjen la ci moom nee na bi mu ñëwee sëñ bi ba mu xamee ne kee la takk te nee la demee ci moom sëñ bi aye ko ko waaye xaw a diit diital xëy na maanaam maanaam xëy na soxna sax bëgg bëgg ko bàyyi wala demee waaye nee ko Cheikh Abdou Khoudoss da ko wax ne ko ñaari maanaam benn nga bàyyi soxna si wala man nga bàyyi ma ñu ne ba mu delloo delloo ci ay bokkam mbokkee dañ ko xamal ne ko sëñ moom bu la bàyyi noonu ñëpp nu maase bàyyi leen maanaam mu far nag jàpp si yàlla bàyyi bàyyi soxna sa moom maanaam day loolu lu lu jafe dama ci ab taalibe ci jamono ji ma sa maanaam att na doog ak sa taalibe ngir ni dafa am dafa xotti war mel lislaam ci misaal waaw att na doog ak moom nga bàyyi mu wala wala wala wala wala wala nga bàyyi ndaw si ndax dara xaram loolu lu réerée la ba sëñ Maxtaar ba tey nett na ma ne mas na am na am na yaakaar naa loolu sëñ Maxtaar moom ko nett li mooy dama wax ne dafa wax ne kenn la ci mag ñi daa toog sëñ bi ku ku ñëpp xam ay sëtam ñu ngi ñu ngi xëy na sax jëraay bi doon ku bari ay kaf nii nee na fi ñu toog nii bi julli jotee nee na am ko ne ko waaw diw doo dem jàpp mu ne ko man jàpp naa ci sëñ bi jàpp naa ci sëñ bi yàgg nees yëpp doxal ba mu ko déggee dana ko ak lu mën a xaw rek dama jàpp te ñëw moom doog am na ci julli gi masalan jubbante googu noonu doon jubbante mboolem ñi ko jege fi ne bokk na ci li nga xam ne itam gën na nga xam ne lu lu am solo la ci dundu Sëriñ Buxus nga xam ne moom dinaa koy seet lu bari xëy na nga xam ne bokk na ci li mu gën a marqué mooy moom nangutoon ku xaajat la ci ay xeet maanaam Sëriñ Buxus Sëriñ Buxus Jóob mi day wax ne maanaam loolu def na ko moom moom moom mu nettali na ko ak ñeneen yu bari bari ñu mu ko def mooy nit di nuyoo nga ne ko nangam bi wax xeet xeet wa mu bokk loolu da ko daa aay day bëgg rek nga wax diw moomee wala mu am ab laago masal lu bëri yu muuru nga ne gumba gi nangam loolu da ko daa aay maanaam bëggut ko xaajatle wala parparloo ci aw xeet wala ci laagoom nit ki wala ci ab bindam dana wax sax ne moom loo xam ne sëñ sëñ am sëñ bas mi laa dégg mu di ko natt ne sëñ sëñ dana wax ne parparloo day xatal diine day xatal diine boo gisee bi mu fi jógee mboolem tarixa yëpp fu ci ne am na ku fa jógee defal ko marché masalan nga xam ne digganteem ak yeneen tarixa yi noonu la rataxoon Cheikh Tidiane Gueye Oustaz Cheikh Tidiane Gueye marché bi dinaa ko wax lu bëri bëri defal na ko marché am na ku ñuy wax Sëñ Aliou Sakho dëkk fële Gambie nga xam ne ñoo ñëpp dañu ay murit ak ñu bëri bëri ñoo xam ne defal nañ ko ay ay marché ngir ni mu yaatale woon ndax loolu it mooy doxalin Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa wax naa ne li mujj dénkaane ci jàkkañ nga xam ne sëñ mat la bi ñu dagg ne moo ko nekk li ci téeréem boobu mu def ci dem ak sëñ bi li sëñ Tuubaa mujj dénkaane mooy moytu leen parparloo parparloo na ngeen ko moytu loolu la sëñ Tuubaa mujj wax jamono murit gi nag fi ne moom parparloo yàq na ko maanaam boo tuddee benn sëñ jàpp na nga ca da ngaa contre ka ci des wala fekk maanaam kenn ku nekk ci jëm ci sa kër mu doon ay ay kër kër yooyu doonaat yeneen i kër. kër yooyu doonaat yeneen i kër yu kenn xamul foofu foofu yow fekk murit moom ca cosaan moom mën naa am mën naa am kenn kum jàpp ci sëriñ bi waaye day maase bëgg sëriñ sépp maanaam du xàjjatle kër yi loolu lu yees la ci ak murit fi ne waaye bu njëkk murit yëpp dañ leen suñu tubaay sëriñ bi yëpp ni nga bëggee sëñ bii nga jébbalu ak fii nga fii nga dëkk loolu ngay bëggee kilifa yi ci def ak sëriñ sépp loolu moo fi nekkoon sëriñ bi nag loolu loon jàngale ci loolu la nekkoon man damaa jeexal nag ma ne ne waxtu bi jeex na man damaa jeexal ci loo xam daan ko wax lu bari bari mooy daa wax ne sëñ Tuubaa ci boobu moo wax ni moo moo moo moo bi mu demee ci bi mu nekkee ci géej gi moom sëñ bi dafa bind borom daru ab leetar boole ci ñetti bay mooy yooyu mu daa wax laysa tasawufa lubsu suufi tarqauhu wala bukaauka in ganna almugannuuna wala siyaaxun wala raqsun wala tarabun wala tiraabun ka an qad sirta majnuuna bali tasawufa an tasfu bila kadarin wa tatbaxa alxaqa walqurana wa diin tasawuf foofu suñ tuba suñ seeb ko ak taalibe la ko daa firee ndax ne ak taalibe du yo sol yére yoo xam ne yëpp ay xotti nga di ko dab daaxee neen loolu du taalibe du itam fekk way neen loolu du ak du du jege du ma rek taalibe at baj baj yi ba mel mel ne dof ku la gis kenn xam lay nuru neen loolu du taalibe mais ak taalibe mooy nga sell set te topp li alxuraan wax ak diine suñu borom bi dafa baax alxaq wal quraan wa diine loolu daan ko wax lu bare ba daanaka da wax ba jeexal te te bokk bokk na ci itam mooy maanaam man dama seetlu ne caf kak maanaam Sëñ Tuubaa gi ñu nekk da nga ko daa da nga ko daa da nga ko daa mose ci moom da nga daa da nga ko daa xeeñtoo ci moom ci misaal li muy nekk mag gis Sëñ Tuubaa jëflanteeg moom nekk ak borom daru teewul ba ci mujj gi fi ne commencé di aji makka da wax ne boo demee nag ma fa ñaanal yërmande yàlla ak njëggalam loolu loolu loolu la maanaam ñun suñu classe gi waxuma la gis sëñ Tuubaa waaye boo géntoon gis ko rek ilaa mi dinañ jàpp ne yow sëriñ nga boo xam ne maanaam yaa sut gaa ñëpp te kii toog naa sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa am naa mu nekk naa moom nekk naa lu mat ñaar fukki at sëñ Tuubaa koy yabal mu jàngi xam-xam fi sëñ mat la mu dugg maanaam borom daru daa def doomam ju mokkal alxuraan da lay jébbal sëñ Tuubaa moom ak sëñ Cheikh Fati Fall ak sëñ Abdourahmane la borom daru booloon jébbal sëñ Tuubaa muy muy sëñ mat muy sëñ Tuubaa bind ab listu téere yabal leen te sëñ mat la mu jóg sëñ mat la mu gay bokk nii nii ñenn yoo xam jëm mooy waaye ñenn du bokkut ak jëm mooy waaye sëñ Mat Lamin Gay daal mu baax moo bokk te sëñ Tuubaa daal sëñ Mat Lamin Gay mu baax moomee leen sëñ Tuubaa yebal ñun jox leen listut ay téere Sëñ Tuubaa daana wax ne sëñ Tuubaa da leen waxoon ne na ngeen na leen njëkk a jàngal moo waxibul kuddus mooy tawxiid lan fa njëkk a jàngal wax ne ne sëñ Tuubaa noonu la ko daa doxale bañ jàngee ba àggal sëñ Mat Lamin ne leen man li ma xam jeexut waaye li sëñ bi waxoon naa leen ko jàngal moom jeex na ngeen dellu ci sëñ Tuubaa nee na bañ ñëwee sëñ Tuubaa ne leen loolu doy naa yem téere yi xam nga bëriwut waaye gis nga dafa barkel ne leen nag kaay téye leen fa ay fan fotti leen ay mbubb ne leen kaay leen ngeen dellu ci seen wetu wayjur borom daru boo ngeen demee ngeen jàppale ko ca liggéey ba daal leen delloo si biir man nga xam ne moom gis nga Sëñ Tuubaa toog ak moom wax ak moom Sëñ Tuubaa defloo ko mu génn mu gërëm ko wutal koy mbubb téye ko fa lépp am na te teewul maanaam waxtu ne mu mu daa maa ak ragal yàllam àgg ci muy tiit ci boobu ba kuy dem di aju mu la nag moo fa ñaanal ak njëggal ak yërmande suñu borom tabaaraka taala loolu mooy murid ya suñ tubaa daan daan daan daan yar suñ tubaa murid yam daa yar fi ne lu mu leen bëggal bëggal du te du tax fi ne ñu ñu naagu mukk suñ tubaa dara ci boobu dara wax ne loo am ci yàlla na nga ko jéggi te te wéy ndax lu ko lu ko ëpp a ngi ci sa kanam loolu daa wax murid murid yu njëkkee moo tax am dara ba tax laa naagu mustaam gis nga borom daru li may nat li ba ci mujjëm maanaam bayitam yooyu muy def noonu mu mu wax noonu ci wéradém googu nga xam ne moom laa doon nat li ne maanaam te loolu ci mujjëm la borom daru Sëñ Tuubaa ko wax ne ko yow bind ko lettre boo xam ne ñëpp gis nañ ko lettre boo xam ne dañ ko wax ne ko yàlla ci bopp moo la gërëm maanaam bu sa bët tegoo ci xaraf yi xamal ne yàlla ci boppam moo la gërëm te teewul bu mujj gis nga day jàmbat naan sama bàkkaar yu bari yi maa ngi koy jàmb suñu borom kasiran yastaki xuuban ilayka far farxam sika yaahu parce que yàlla nag ma yàlla yàgg naa laa jàmbat sama bakkaar yu bari suñu borom yàlla nag ma jërëm te jégal maanaam borom darul moot yàlla yàlla tas ci barkeb gaa ñooñu yàlla yàlla defal tawfeex daal nu doon ay murit murit du gis boppam maanaam murit dafa am tàmbale mooy murit du gis boppam boo gisee dara ci sa bopp suñu tubaab daa da nga moytoo gis sa bopp na ngeen moytoo yëg seen bopp bopp ndax ku yëg dara ci boppam yàlla réer ko te ku yàlla réer seytaane wammat na ku seytaane wammat safaan ba la jëm loolu suñu ci war a wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.